حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات

mooy. na bàyyi xel ni. na bàyyi xel ni. ku yem ci moom ku ne. ku yem ci moom ku ne. ak nawam daa war a dog. ak nawam daa war a dog. bu ne doomi seen mboor mooy. bu ñu nee doomi seen mboor mooy Cissé la. te mi dëgg ca ko te muy dëgg ca ko ko wax. soo xool soo ne jàkk rek soo ne jàkk soxna si rek sax naw daa war a dog saw nangu saw naw daa war a dog ndax doom jigéen kët ndax doom ci jigéen kët bàyyam lay nuru waaye man tegu waaye nee na moom tegu ko woon doomi sëriñ Mor Mbaye Cissé ah, daa bëggoon mu gën maa si murit la nee na moom mii kat doomi sëriñ Mor Amin Tal Fall la te te Cheikh bi fi bi ñëw fii mooy Cheikh Fall nee na bi muy ñëw fii mooy Cheikh Ibrahima Fall te gis nga ban ne jàkk ñoom ñaar te gis nga bañ ne jàkk ñoom ñaar kenn ku ne kenn ku ne da ngaa mel ni sa morom daa la nga wutu sa morom daa gis la nga wutu sëriñ bi yaa ngi dégg li nga xam sëriñ Mbay yaa ngi gis yaa ngi bi wax ndax man man ñeme naa ñëpp ñeme naa ñëpp bàyyi ma nee na moom sëriñ Moustapha Mbar mii ñeme na ñëpp bàyyi ko ma des nii mu des ak sëriñ bi rek moo tax mu bëgg a wax dëgg na ngeen dégg moo tax nag nee na mu bëgg a wax dëgg ñëpp dégg ko sëriñ Abdoulaye Cissé alal jàmbur nga yor alal jàmbur nga yor de ci ñi fi bàyyi ñi moo tax ñu bàyyi na moo tax ñu bàyyi ñu ni su leen wóoroon ni suñu fi bàyyee suñu fi bàyyee duñ def lañ bëgg kon duñ ñu kon dañ ñuy jiital topp ci ñun topp ci tax ñu bàyyi doyloonu képp moo tax ñu bàyyi ñu fi junniy bopp nag junniy bopp yëpp lu dal mur ji nag lu dal mur ji nag noo leen ko teg ñun ñii ñoo leen ko teg ñun ñi xam ne ñun ñi nga xam ni noo war ni noonu la ci yoon wa noo war ni noonu ci yoon wa jàdd yoon wa jàdd yoon wa ne ca mbooy ga nekk nag ca mbooy ga ba noppi di woote ba noppi nag di woote naan yoon waa ngi nii naa yoon waa ngi nii ku xamoon ku xamoon na lànk na lànk rek na xam ne fan koy woo du yoon na xam ne fañ koy woo moom du yoon wa sëñ Mbay sëñ Mbay Ngiraan li xool li wax daa métti waaye dëgg la yow sëriñ bi nee na li muy wax daa métti de waaye dëgg rek la wax nee na dëgg gi nag dëgg gi nag ni ma ko bëggee mooy ni mu ko bëggee nag mooy kii moom kii moom ku ne xam ne ni ki ko doyloo bàyyi ko fi. ne xam ne ni ki ko doyloo bàyyi ko fi. bu doyuloon bu doyuloon. doo ko fi jëlee moom. nga doy ko rek nga de moo tax mu bàyyi la fi. wallaay asim yaakaar tax mu bàyyi ko. wallaay asim sëriñ bi nee na yaakaar rek tax ñu bàyyi la fi. bari na kuñ bàyyi ci barab ne. nee na bari na kuñ bàyyi ca barab ne. yaakaar yaakaari kilifaam. yaakaari kilifaam. moo tax bàyyi ko. moo tax ñu bàyyi ko ba. waaye bu ko wóoroon waaye bu ko wóoroon ni. bu ko bàyyi xalam ci bëgg a am bu ko bàyyee ca bëgg du am. ndax mbooleem lam yoroon. ndax mbooleem lam yoroon. ma ngi fi mi ngi fi. Mm. jumtuwaay yu mu doon liggéey rek jumtuwaay képp yu mu doon liggéey la te mën la jëfee dara te mën ta jëfee dara ah, du liggéey foofa nee na du liggéey foofa de kon kon faw ki mu doyloo kon faw ki mu doyloo mu teg ci ay yoxoom mu teg kon si kon si blaat kon sëriñ maa ngi nuyoo ci turu Serigne Fallilou mi ngi nuyoo nag ci turu Serigne Fallilou Fall ma Serigne Mbaye Serigne Mbaye Ngiraan li yées si ndaw li yées si ndaw mooy murid mel ni man mooy nee na murid bu mel ni man dem dem ngir kilifaam ba noppi. dem ngir kilifaam ba noppi. bëgg daraja bëgg daraja. man kii man cëru jàmbur la andi. nee na moom cëru jàmbur la indi. kaddu jàmbur rek la andi. kaddu jàmbur képp nee na la indi. sama kaddu kilifa andi. nee na kaddu kilifaam la indi. ci jëwriñu kër gii. ci jëwriñu kër gii. di turandoo Cheikh Abdoulaye bii. di turandoo Cheikh Abdoulaye Mbacké bii. fi ne ñi sant Fall. nee na fi mu nekk nii ñi sant Fall. maa ngi jàpp ni. nee na mu ngi jàpp ni. ñëwaale naa njabootu Cheikh Ibrahima. ñëwaale na njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. loolu la bëgg moo ko gëm sax li muy wax. nee na bëggul moom ku gëm sax li muy wax. waaye li ci biir xol la waaye nee na ci biir xolam moom la wax. damaa jàpp ci sama xol nee na dafa jàpp ci xolam ni. ku sa buntu Cheikh Ibrahima Fall sëñ nekk Cheikh Ibrahima Fall. ci Serigne Touba. ñu ñu ñëwaale naa la. ñëwaale na ko moom. nee na loolu la téye ci boppam. te ki ma yebal itam. te ki ko yebal itam. wax naa leen ba tey. wax na leen ba tey. day taawu kër yëpp. day taawu kër yëpp. kër gu Serigne Fall dem rek. kër gu Serigne Fallilu dem rek. moo moo fa mag. moo fa mag. mooy taawu kër. mooy taawu kër ga. taawu baay nag. taawu baay nag. lu waay def kër baay. lu waay def ci kër baay. moom la ko dimbalee. moom la ko dimbalee. te kër gi kër yëpp mooy taaw. te kër yëpp mooy taaw. te kër yëpp mooy taaw. kon na fu mu dem. te kër kon nag fu mu dem kon nag fu mu dem moo fa war a moo def moo fa war a def moo fa war a jëf moo fa war a jëf moo fa war wax moo fa war a wax moo tax kii ñu yebal nag moo tax kii ñu yebal nag su agsee su agsee moom faaw ma wax nag faaw mu wax nag moom ndax su ma waxul ndax su waxul duñ xam lu lu lu ma yónni. duñ xam luñ ko yónni moom. faaw mu wax ko sëñ Ablaat. faaw mu wax ko sëñ Ablaat. ba mu dégg ko ci noppam. ba mu dégg ko nag ci noppam. ngeen seere ko ko nag yéen murid yi toog. li may wax nag. lii muy wax nag nee na. lu ci niru dëgg. lu ci niru dëgg. na nan ma ko déy. nañ ko ko déy moom. waaw bañu ma ko weddi. nee na bañu bañu ma ko weddi de. waaye li waaye li xaw ma dëgg la am nag. nee na xamul dëgg la am déet nag. waaye murid yi. waaye nee na murid yi. li ma wax lii mu wax. nuru na dëgg nuru na dëgg moom. xamee ma dëgg waaye nuru na ko. nee na xamee ma dëgg waaye nuru na ko dëgg kon nag ci turu Serigne Falilou. kon ci turu Serigne Falilou. ci turu kilifaam yëpp na dund ak waaye kii ba nga bëgg a yóbbu na ñaan. Ah, waxewu na dund. day na wér na wér. na mucc na gën waaw waaw wax baatin nga waxee waaw baatin laa waxee waaw ak ko dimbale ba ko gën a doole waaw maa ngi nii di xam xam ci yoon la nekk nee na ci yoon la nekk ci yoonu barsax la nekk nee na moom mii sax ci yoonu barsax la nekk ñun ñëpp ci lañ nekk nee na bëgg a rafetal moo tax nee na mu bëgg a rafetal xam damaa xam way juróom ba nee na dafa xam way juróom mu tedd wa ah, ñi ci biir baatin ci biir baatin ñi am baatin ñoom ñi am baatin ñoom xam nañ sëñ Mor xam nañ sëriñ Mor Mbaye Cissé waxal sëñ Mor waxal sëriñ Mbaye Ngiraan waxal waxal waxal nee na waxal nee xam nañ ko de ñi am baatin xam nañ kan mooy sëriñ Mor Mbaye Cissé xam nga fa fa ki woote moom ki woote woote bii nee na ki woote woote bii di sëriñ Touba di sëriñ Touba ñëpp nangu ni ñëpp a nangu ni sëñ Mor Mbaye si wuy si na sëriñ Mor Mbaye Cissé moom wuy si na muy bëggam ak bëggam sëriñ Touba muy bëggam ak bëggam sëriñ Touba dara mënu ko weesu dara mënu ko weesu ndax jëfandikoowul ndax jëfandikoowul lenn saayir lenn saayir léppam léppam sëriñ bi rek la sëriñ bi rek la ci lay ñoddi ci lay ñoddi ci lay jëñ ci lay jëñ ci lay dàq ci lay dàq ci lay defe lépp ci lay defe lépp kon li sëñ woote woon wuy si na ko ci kon li sëriñ Touba woote woon sëriñ Mor Mbaye Cissé moom wuy si na nga bëgg ma ñaanal ko soxna loolu nga bëgg nag sëñ Abdou Lahad sëriñ bi ko soxna si ñaanal ko mbooloo mi ñaanal ko mbooloo mi damay damay jajj sama bopp nee na day jajj boppam moom mii dagg gi dagg gi nee na dagg gi fi mu nekk nii maa bëgg a ñaw man nee na moom sëriñ Moustapha mii moo bëgg a ñaw moom moo tax may daggee moo tax muy daggee sama bopp lay waxal nee na boppam rek lay waxal nee na ko bëgg wax loo xam ni bëgg a wax loo xam ni du génn ci waxtu wu day fàttaliku nii day fàttaliku nii sama soppee ngi nii sama soppee ngi nii ndax day am loo xam koy wax waaju baax ndax day am loo xam ne koy wax waaju baax ab soppeem nga ab waaye koy wax baax nag waaye ku koy wax waaju baax nag am na loo xam ne am na loo xam ni ko koy wax waaju baax ku koy wax waaju baax yaay am noonam yaay am noonam maanaam lii ma wax moom nag lii mu wax ñëpp nangu ni ñëpp nangu ni ab soppe la ab soppe la moom nuru ko lool faal moom nga ab soppe dëgg nga sax ab soppe nga de ah non non non ñaan ñaan taxawaay bi sëriñ Mbaye Ngiraan. ñu ngi ñaan nag yu baax yii. sëriñ Abdoulaye Hadj mii ak rakam yu baax yii. yàlla nañu yàgg taxawee seen wayjur yàlla nañu yàgg taxawee seen wayjur wi. la ci bis bii. te làq ngërëmam la ci bis bii. ma ma fi dama noonu su ma ñëwee sax. nee na dafa waxoon su ñëwee sax. damay nuyoo day nuyoo. joxe sama addi ji joxe addiyaam ji képp nag képp nag waaye du wax dara waaye nee na du wax dara kon ndeke woo su ma ñëwee dinaa wax ndeke woo nee na su ñëwee moom faw dina wax xam-xam daa jóge fii nee na daa jóge fii daa jóge ci kër Sëñ Ablaat nee na daa jóge ci kër ga Sëñ Ablaat jëm ci armeel ya jëm ci armeel ya di yóbbu kenn soxna kenn ci njaboot gu soxna yi de di yóbbu nag kenn koo xamante ni bii dafa faatu ci soxna yi waaw di muritu kër gi di muritu kër gi ma ma ma ma bëggoon caa dem. nee na sëriñ bi moom bëggoon caa dem. waaye damaa fara yable waaye nag daa far yeble nag. ñëw fii ñëw fii nag. ci njaareem bi ne ma bis moom tey la. nee na biñ ko nee bis bi tey la rek. day mel ni la jóge woon ci man sax day mel ni la jóge woon ci moom sax maa ngi jàpp mu du dellu si moo nga jàpp ni moom du gaaw a dellu si moom ndax ndax dafa xat ci moom lool daa fàtte woon ni nee na dafa fàtte mooy fanweeri fan ak ak benn waaye ma ko wax waaye ki jiite yi moom xam ne moom moo tax wàññi ko moo tax nag mu wàññi ko fa mu doon dem de ñi ma doon àndal ngi nii ñu doon àndal ñi ngi nii sëñ daam saali ngi nii ca robba lañ jëmoon ca robba lañ jëmoon su fekkee waxal yàlla rek la su loolu loolu dëgg ci loolu mooy dëgg ci waaye bi sama nopp bi bi waaye dugalee nag am noppam ni magal gi kat tey jii la am na ñoo xam am na ñoo xam ni ci buntu kër ba la day ci buntu kër ba la dajeeg ñoom moom bàyyi it yëpp bàyyi it yëpp jóg nag jóg nag ngir la leen daloon ngir la leen daloon sa jëmmi bopp ji sa jëmmi bopp ji yëg na ko yëg na ko yëkkati nga ko yëkkati nga ko ànd na mbooloo ànd mbooloo fekk ma fa ma toog fekk ko fa mu nekk ca Mbàkke sëñ Mbay mii sëñ Mbay Ngiraan mii jëmmi boppam ji jëmmi boppam ji ànd na ak mbooloo ànd naa mbooloo dëral la la taxoon a jóg. dëral nag la la taxoon a jóg. te ma nekkal fa sëriñ bi. te mu nekkal fa nag sëriñ bi. mu def may jëwriñ ma jëwriñ rek la ci tool mu def ko muy jëwriñ rek nee na moom jëwriñ rek la ci tool bi. kon lu may tey jóg kon. kon nag nee na moom lu koy teree jóg. sëñ Mbaye loolu moo tax sëñ Mbaye sëriñ bi nee na loolu rek de moo ko tax a jóg. loolu rek nee na moo ko tax a jóg. waaw ñaanal noo ah. tàllal leen. nangu leen ñaan te ngeen ñaanal nag yàlla bàyyi ko fi lu yàgg. waaw waaw te te maa ñaanal ma ñaan. waaw yaay ñaan ñuy fas ci suuf suñu li ngeen bëgg yàlla nañ ko am amiin sëriñ bi nee na li ngeen bëgg yàlla ngeen ko am li ngeen bëgg sëriñ bi yàlla nañ ko am li ngeen bëgg sëriñ bi yàlla nañ ko am li bëgg ñun yàlla ko li sëriñ bi bëgg ci ñun yàlla nañ ko am ci daraje Cheikh Amadou Fallilou daraje Cheikh Amadou Moustapha daraje sëriñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall daraje borom bis bi ak jëwrinam ak jëwrinam gën lépp amiin ak ki tax yàlla bind lépp sallallahu taala alayhi wa sallam ne ñëpp ñaan nañ ko ñëpp ñaan nañ ko loolu laa lépp ngi yi na ko ñëpp ñaan mu yàgg fi tawér صلى عليه مع التسليم راسقه بالآل والصحب من دانوا بتاعاته صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نعم الكرامات صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والسهب من نال العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نعم الكشوفات صلى وسلم من في الجهر قدمه عليه بالآل تعداد الخليقات صلى عليه مع التسليم رافعه أزكى صلاة بها نعم ارتفاعاته أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاغات على الحبيب بن عبد الله سيدنا فلا تكاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء فلا تشاف شفاهم من دسيساته على الذي فضله لا ينتهي أبدا فلا تهاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم